Babacar Kewul nekk ak DG Petronas ci leen li nga xam ni moo di ci métier journalisme waaye am ak sitam bi nga xam ni foofu la daal di suturloo ànd ko ak leen ci ay liggéeykatam Babacar Kewul nekk ki nga xam ni mën nañ ne mooy l'infatigable ci ginnaaw li nga xam ni ngir rek askanu Sénégal gi am lépp loo xam lu leer te wóor lay doon kenn ku nekk di ci teg sa baaram di ko gis Babacar Kewoulo nekk ki nga xam ni mun nañ ni ab journaliste bi nga xam ni saa su ne dafay joxe boppam joxe bakkanam joxe léppam ngir Sénégal mucc ay ndax mën nañ ne moom Babacar Kewoulo nekkoon na ki nga xam ni ci mim réew du Sénégal gis nañ taxawaay bi nga xam ni amaan na jamono ci ginnaaw ab journaliste wala ñenn ñi kenn ku nekk booy wax da ngay jël sa responsabilité ba mu mat sëkk ndax kat nguur gi fi woon pare woon nañ pour nasaxal presse Sénégal gile ba sax mën nañ nee lenn ci presse Sénégal gile ñooñu dañaa féete woon ci moom bu baax a baax loolee sax tax na moom Babacar Kéwoulo am matuwaay ak taxawaay bi nga xam amoon na ko ba jafe-jafe am ko dal ko ci daal ko yóbbu fi nga xam moo ci yoon waaye loolu yëpp taxul moom benn yoon mu daal di découragé tey ji nag Babacar Kéwoulo daal di addu ñëw ci li nga xam ni moo di tolluwaay réew mi waaye tamit ak nguur gi yees gi fi ngir kat fexee la tout ba lépp koo xam ni lekkoon nga si alalu Sénégal gi te lekkin boobu tegul ci yoon benn yoon di nga gokki boobale alal comme ni ko Ousmane Sonko waxee bërk démb ci ak déclaration bi nga xam ne defoon na ko ngir kat waajal premier mai bi nga xam ne premier mai bi nga xam bi nga xam ni moo nekkoon set setal boobu le waaye tamit ci loolee mën nañ ne Babacar Kéwoulo àddu bu baax a baax jëmee ci nguur gi yees gi réforme yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci justice waaye tamit yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir fexee la tout ba lépp Sénégal gu nekk gis sa bopp ci mim réew di Sénégal gi ndax kat amaana gis nañ bu baax a baax justice Sénégal gi ak sénégalais yi demoon nañ ba amoon na kumba am ndey ak ku ma amul ndey la waaye tamit demoon na ba nekk safara ak demoon na ba nekk li nga xam ne moo di safara ci caas waaye tamit demoon na ba nekk li nga xam ne moo di ab bu am bu baax a baax loolee tax en sax dem ba am waaye tamit mën nañ ne Babacar Kéwélu daal di xamle justice bu bees bi nguur gu bees gi la ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ba boolewaat sénégalais yi ak justice ñu doon benn waaye ba boolewaat sénégalais yi ak tànk sénégalais sénégalais ñu doon benn tey jii lee Babacar Kéwélu daal di addu jëmee ci taxawaay bi nga xam ne nguur gi yes gi am na ko waaye tamit indi ay leeral jëme ko ci coow ki nga xam moo di Doro Gaye indi ay leeral jëme ko ci ñi nga xam ne ñoo di ay nañu woowee seen bopp ay journaliste te féete ci nguur gi waaye tamit ak ñi nga xam ni ay prête noo lañ di lekk alal réew mi te mën nañ ne xamuñu benn yoon fu yenn société daal di nekk Babacar Kewoolu daal di addu jëmee ci taxawaayu réew mi yëpp le waaye tamit indi ab leeral président bi fi woon di président sortant bi Macky yàq réew mi nga xam ne gis nañu da jàpp nañu yàq na ko bu baax baax ci financement yi nga xam ni mun nañ ne leen taxawoon ko ci ngir déstabiliser réew mi waaye tamit ngir déstabiliser kii di Ousmane ak lépp lu jëm ci Pastef les patriotes ndax kat daanaka gis nañ ko bu baax a baax ci li nga xam ne tasoon nañ parti boobu le waaye bu yàlla nee waaw waaw rek lay doon daanaka moom Babacar Kewoolu addu jëmee ci taxawaay bu nekk ngir kat fexee la tout Sénégalais ñu jàpp jàpp jàppaat te xam ne réew mi ñu gis nii daanaka mu ngi ci yoonu defaru donte ñu bëri njoxuñu loolu benn yoon.